sëriñ mahib radiallahu taala anu nee na bu ñu daan jàng ba wax lu dul noona ci waxin wi sëriñ tuuba xaadaloo la maxtaaloo day woo sëriñ mohamadou lamin jóob radiallahu taala anu bu ñëwee ba ñu wax way wa mu jàng ko na mu ware sëriñ bi ni dée ngeen ko noo nii la siiw na booba nee na mën a booba nee na mën a guñu maxaarij al xuruuf wallahu alam ahmadu mughniyan taala an sina wa kaana lii bi kulli shahrin wa sana ahmadu mughniyan taala an sina وكان لي بكل شهر وسنة خاطبته في البر والبحر وفي السر والجهر مع الهادي الوفي خاطبته في البر والبحر وفي السر والجهر مع الهادي الوفي فقلت يا رب الورى يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا فقلت يا رب الورى يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا